ànd ak Serigne Babacar Sy yal na la yàlla lafal cat yal na la yàlla may Souleymane Dramé mi nga xamante ni bi mooy président Alco Thiès yëpp moom it teew na fi moom ñuy toog euh, muy Jules Dramé moom moo fi teewal artiste comédien yëpp kon tootoo si Jules ñoom lay ñaanal yàlla lafal la cat wax dëgg yàlla moom lu rëy la ci alsaan wax dëgg yàlla alsaan bokk na ci ñi ko teg tontoo Souleymane nii ci la bokk ànd ak moom fu nekk kon tontoo Souleymane ñu ngi lay sant di la kàddu yu gudd na waaye da doon yóbbante boo xamante ni mënul woon ñàkk alsaan yóbbante ko ci Assane tudd na ne doom ji soxna Anna Camara soxna Anna Camara maamam la moo ko yar pratiquement mais j'ai j'ai vraiment d'émotion dans ma voix mais il faut moo wax ci Assane parce que turandoo bi nii képp ku Anna Camara jur képp kuy doomu Anna Camara ak képp kuy sëtu Anna Camara sa xol sedd na kontaan na ci Assane nag wax ci moom yomb na ndax xale bu baax la xale bu yaru la xale bu yaatu la xale bu xajoo ñëpp alsaan njëlam ñëpp ci lañu bokk bu lekk gi pare bu fekk ci kër gi bu ngaa dugal sa loxo te loolu bu nekkee c'est parce que jabaram aussi dafa baax bu gàmmu jotee alsaan ginaar yu bëri tiwaawoon jabaram indi ndox sax da boole ay fruits keesu pomme keesu banaan keesu euh, clémentine keesu poire mais li tax Alsaan bi dégg loolu Alsaan dafa nekkoon nag maamam maamam jox bi maamam di génn àdduna Alsaan il n'avait que dix-neuf ans Pape am onze ans Didi am neuf ans huit ans mais il les a gérés du leen dóor du leen saaga du leen xas yàlla jàppale ko ba tey jii mu teg di jëriñ bàyyam di ko jàppale di uuf ay rakam su ma nee ay rakam nag waxuma rek taf rek diit ñépp laa wax samay doom ñu mu bokkal baay lu nekk dina def may doom xale bu am jom la te muñ na lu nekk ku mel ni Ndiaye wala Ousmane xam na ci dara mais boo xamee ay bàjjanam boo xamee bàjjanam ndey maam xam bàjjanam ci ndege xam bàjjanam ndey at xam ay baayam lu mu duggee jiitu ci nga xam ni loolu tax ko xool ko ko fekk kër am jom la bu baax la dañ cee ñaanal rek Assane boo boo ko xamee sax foog nga yéene ko teraanga yéene ko gudd fan tellement il est correct il est vraiment correct il y dañoo am tour de yëpp ñëw la famille était là alors euh, Fatou daal di ne xale yi nañ présenté wu lii di jóg jël parole daal ne man maay Mamadou Gueye doomu Cheikh Tidiane Gueye ak code lu mais sama tonton Souleymane ak sama tata Ndeye Ami àjjana laa leen yéene dem leen ko ñaan ko sax waaw courage baax na jërëjëf jërëjëf wax bi rafet na jërëjëf bi jërëjëf yëpp rafet na salaamaaleykum mbooloo maa ngi nuyu kenn ci nekk sant yëkkati ñu ko di fedd li li kii wax rek xale bi sama yaay lañ ko ana tam nekkoon soxna su koo xam ne këram la ñëpp daan def partout daal mu nekkoon lu jom ci boppam lu mu mës res du koy téye ak kooku la alsaan tudde su doo woon su doon ñu ko tudd nag yaa des semaines auparavant donc tey dañuy feddali rek di gërëm ñëpp di sant ñëpp alsaan nag doom la doom dañu naan kenn ku tudd dañ koy yar parce que yar nañ ko ni ñu ko war a yare moo waral tey jii mu mel ni mu mel donc madame bi ñu ko ñaanal rek moom soxna yàlla saxal leen fi yokk seen mën-mën yokk seen wërsëg parce que je pense loolu mooy li am solo maa ngi gërëm di sant du ma fàtte aussi nag soxnaam muy Ndeye Ndiaye wax dëgg yàlla nday Ndiaye bu baax ndax bu mu sëy sëy fii ba léegi wàññiwul dara dafa yokk donc alsaan bu mënee euh, jabaram ñu ci wetam dooleel na ko parce que dañu naan toujours derrière chaque grand homme bu la yàlla baaxee nga am jabar bu baax ah, donc dëgg yàlla mën na la kii donc Ndeye Ndiaye dama koy gërëm di sant parce que nit ku baax la nit ku am jom la nit ku déterminé fonk na boppam fonk nañ ay responsabilité kon dama leen di ñaanal rek yàlla may leen ñu gudd fan hmm? ba seen mën-mën yokk liir bi tamit ma koy ñaanal yàlla gudd fan yàlla loolu ay fan waaw mu nekk mag mu am ñam woon bu jaawoon jotee def ci sol xanaa mu jëlee moom fonkoon diine xam nga it ki mu doon kon Jeynab Clara Alsaan moom lay sant di la ñaanal di la gërëm di wax kontaan ci yow bu baax a baax ci teew bi nga teew ànd ak sa délégation wax dëgg yàlla nit ku baax man bi may liggéey yow Alsaan sax liggéeyul ak gannaaw yàlla Alsaan bu fa ñëwee man mii bokk naa ci ñu ko fa tette nga jàpp ko nag comme ni ma jàppee. seq ak ñun teraanga seq ak ñun jàmm ak salaam mu soo yëkkati baat bu ñaaw def ko ci ñun ngay référence nag ci réew mi kon Seynab Alassane moom lay sant bu baax di la gërëm di la wax kontaan na ci teewaay bu baax a baax a baax nit ku baax nga taal bi Serigne Babacar Sy yal na la yàlla lafal jat yal na la yàlla may gudd fan may la wér ci barke mu Muhammad li nga xamante ni nii moom nga mébét ci Alassane yal na ko suñu borom moo del kon kontaan kontaan ci ñi nga xamante ni mooy tonton Souleymane Dramé mi nga xamante ni mooy président Arco Thiès yëpp moom it teew na fi moom ñii toog euh, muy Jules moom moo fi teewal artiste comédien yëpp ñoo ngi lay ñaanal yàlla la la cat dëgg yàlla moom lu rëy la ci alsaan wax dëgg yàlla alsaan bokk na ci ñi ko te tonton Souleymane nii ci la bokk ànd ak naa moom fu ne kon tonton Souleymane ñoo lay sant di la gërëm kàddu yu gudd na waaye da yóbbante boo xamante ni mënul woon ñàkk alsaan yóbbante ma ko ci ñi fi kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp gudd fan wér di leen wax bon lan sax lañ koy wax bon baptême xaw <laughs> ma jërëjëf kàddu lii may yëkkati nag day kàddu lu ma alsaan koy jox moom Souleymane li mu wax ci alxaan ak papaam bu baax bi di tonton Cheikh Gueye ñun dañ ci fekk lu bari ndax alxaan mi yaakaar naa ñu ñëpp ci kër gi la ñu nekkoon ak moom depuis 2003 jàpp 2004 ñu ànd ci ànd bu rafet dara mu suñaa wax dëgg yàlla mu jàngal ñu aar lépp loo xamante ni nii aar la ci si ñun rek alsaan bi moo ko def ci ñun mu tette ñu nag jàngal ñu lu bari man dama naan fu ma mus taxaw ci àdduna dama naan lu nekk ci man ci aar alsaan bi moo ko def ci man mu bëgg ma loolu fonk ma ma bokk ci kër gi kon alsaan moom leen di sant bu baax di leen ñaanal tonton Souleymane yàlla bàyyi leen ba ci kanam yàlla guddal seen fan yoreel seen cër di sant képp koo xamante ni nii teew ko ci bis alsaan moom nit ku ñëpp la nit ku baax la nit ku yaru la du xuloo du xeex loolu la ko ñëpp xamal kon alsaan ñoo lay ñaanal yàlla la xal la cat loolu yi na jël euh, yal na jël ki nga xamante ni moom lañ ko tuddee muy soxna aan yàlla xare ko àjjana ci barke Seydina Muhammad waaye alsaan daf maa yóbbante ne naa ko santal ki nga xamante ni nii nit ku baax muy jigéen bu baax jigéen ju sell jigéen ju xam boppam bi da xamante ni macha allah alsaan ci moom la nekk di liggéey muy njaatigéem di patron bi léppam muy soxna Zeynab Kalaara muy madame Guèye moo ngi nee toog jóge ba Dakar alsaan ci ay loxoom la nekk di liggéey mu fonk ko lool jàppal ko boppam bëggal ko boppam alsaan daf ma ne lépp loo ma waxal ci madame Guèye ci lu baax doyul fonk nga ko jàpp nga ko respecté nga ko jox nga ko cër